alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne cant yépp moo ko yeyoo di ko ñaan mu julli sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñu jàngal yoon ba ñu jëmee ci sunu boroom mbokk la nga xam ne mooy sunu xutba tey mi ngi jëm ci fàttaliku jaam bi nan la war a bàyyee xel nan la war a bàyyee xel wërsëg wi ko sunu boroom jalla wa ala di wërsëgal lu jiitu loolu ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax leen ci jaamu yàlla sax leen ci sant yàlla fexe leen bëgg seen boroom mi nga xam ne moo leen di leel ci wërsëgam yàlla rek moo ñu bind lu nekk ci ñun ci ay cër moo ñu ko wërsëgal yàlla moomu moo ñu may xéewalam xéewal yoo xam ne moo ko may mboole mi mbindaafanam amul kenn koo gis lu dul ne la ko tax di dund mooy xéewali borom bi la yàlla moo ko xéewal te yàlla moo koy taxaw jataay bi ñu toog ci jàkka ji sunu borom mi ngi wërsëgal oxygène bu ñuy noyyi muy ngelaw bu ñuy noyyi sunu borom mi ngi ñuy wërsëgal sunu xol bi di tëgg muy purifier sunu deret ji di tasaare sunu yaram bi yépp loolu mu ñu koy defal ci jamono bi ñuy nelaw ci jamono bu ñuy liggéey ak heure bu ñu mën a nekk mboole mi jaamu yàlla yi noonu la mel wërsëgam ba jaglee lu ko julit wala yéeféer bal ay noonam sax daggul wërsëgam ci ñoom mooy yóbbu wërsëg ñeel waa ju néew doole amul benn pexe mooy jox wërsëg borom kattan gu màggee sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne nii amul benn jaamam lu dul am na loo xam ne ba mu koy bind tëraloon na lam ko nar a wërsëgal babaa muy jóge ci biir suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu amul kenn ci yéen lu dul ba mu nekkee ci biiru yaayam am fa ñeenti weer yàlla tëraloon ne wërsëg wi mu ko nar a wërsëgal yépp babaa muy faatu loolee ak lum mën a doon sa borom mu ne samay wërsëg duma ko xañ kenn soo baaxee dinaa la ko jox soo bonee it dinaa la ko jox donte ne am na lu leen di xaar ëllëg iyeen jullit yi xam leen ne sunu borom yàlla mooy ki nga xam ne du jeexle yow doomu aadama yaay jeexle yaag say moroom amma yàlla lam yor du jeex nee na moom moo ñeewante ay jaamam moo leen di wërsëgal ci mooy borom kàttan gi waaye mooy ki jege jaam yi xam leen ci lépp loo xam ne nekk nañ ko di leen sotti xéewalam ca yaakaarul ci ñoom dara di leen sotti xéewalam ci bu ko neexee ci sabab ak lépp loo xam ne ni du sabab jubal leen ca lay tax ñu mën koo jëriñoo sunu borom jalla wa ala mooy ki nga xam ne ni nii moo ñu bind bam ñuy bind indi ñu ci kaw suuf la taxoon mu bind ñu mooy ngir ñu jaamu ko amma sunu wërsëg mu ne man maa ko gàddu donte ne lu bëri ci ay jaamam jaawale nañu dañoo jàpp ne dañoo ñëw ci kaw suuf ngir sàkku wërsëg sunu borom mu ne déedéet da ngeen ñëw ci kaw suuf ngir jaamu ma kon sàkku wërsëg daa war a dugg ci biir jaamu yàlla bépp sàkku wërsëg bu lay xañ jaamu yàlla xamal ne loolu erreur la musiba la sunu borom yàlla nag mu ne man may ki nga xam ne soxlaa lu ma ko ma leel man yàlla man rek may wërsëg wërsëgal ci sama kàttan dara mënu koo téye bokk sunu borom subhanahu wa taala ku muy sotti wërsëg du xool ndax lii doy nag doyul ku ko neex lay sotti la ko neex na doon kooku góor la wala muy jigéen borom boobu mbokk julit moo ñuy wax ne xool leen ngeen seetlu ana ñaata bàyyi moo ñuy dund ci kaw suuf ca la nga xamee ne seen wërsëg gàdduwuñ ko man yàlla maa ko gàddu ay yow mbokk julit bàyyil xel sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog bi saxaaba yi ñëwee na ko ay yu mi yàlla yónni ñun day prix yi dafa cher ci marché yi dañoo bëggoon nga wàññi ko utal ci ay prix yonent bi alayhi salaam ne leen déedéet yàlla day mooy tëral ay prix yàlla mooy gàttal wërsëg di yaatal wërsëg am na koo xam ne tey saako ceeb bu doon jar mille francs mënu koo jënd am na koo xam ne bu saako ceeb doon jar un million du tax njabootam diñe wala ñu fande man bëgguma dajeeg yàlla kenn di ma topp ci ak xam donte ne yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ngalla waaye ñooñu doon tëral wàññi location yi ak bépp loi bu ñuy tëral ci réew mi ak ne xool ñuy diis ak borom xam-xami diine yi bala ñoo jël benn dogal ci lu mën a doon ay yéen mbokk julit ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca rafetal ñi nga xam ne noonu ngeen di sàkkoo wërsëg kenn ci yéen lu wërsëgam yéex yéex yéex xamal ne bala ngaa dee danga ci jot yonent bi alayhi salaam nee na amul kenn kuy dee lu dul wërsëgam dafa jeex ey waaye ragal leen yàlla ca rafetal ni ngeen di wute kenn ci yéen wërsëgam yéex a ñëw bu mu tax mu dem di ko wuti ji foo xam ne fu xaraam la aka bari tey ay jeunes yu dem di agressé ngir dañoo wër liggéey ba sonn aka bari tey ay jigéen yu dem ñu enregistré leen polyclinique ñuy jaay seen bopp ngiree ne dañoo amul jëkkër bu leen jox mbokk yooyu yépp ay njuumte la muñal muñ gu rafet ca xam ne def lu bon loolu du tax nga am lu yàlla tuddul ci yow sunu borom subhanahu wa taala moom dong nit nga war a gëm ne moom moo yor wërsëg keneen ku dul moom amu ko mu ne ay yéen jaam yi fàttali ko leen samay xéewal ci yéen ndax am na keneen ku dul kuy bind ca du yàlla abadan mboolem loo gis muy daagu ci kaw suuf wala muy naaw wala muy raam xamal ne yàlla ko bind sunu borom it mu ne waaw ndax kon am na keneen kuy wërsëgal ca du yàlla laa mbokk julit kenn mënu laa wërsëgal ku dul yàlla moo tax borom bi ne xam leen ne yeyoowul ñu jaamu kenn ku dul moom borom boobu nga xam ne nii moom moo yeyoo bind gi ca moo yeyoo la nga xam ne moom mooy wërsëg wi ay yéen mbokk julit nga la waay bàyyil xel yow mi nga xam ne yaay sakku wërsëg xoolal sunu borom nee na amul lenn loo xam ne bind naa ko muy dox ci kaw suuf lu dul xam naa fa mu nekk te danaa ko fekk ak wërsëgam xoolal jën yi nekk ci biir géej lii nga xam ne mooy baleine ay tonnes lay lekk ci jën par jour ay tonnes la baleine di lekk am na yu mën a nekk cinq wala huit tonnes par jour et pourtant bis bu ñu xëyee yàlla may leen lu ñu añe may leen lu ñu reere bàyyil xel la nga xam ne mooy sànq leen ñi gën a tuuti ña ngay jóg di don doni yàlla dana leen may lu ñu reere bàyyil xel sax ya nekk ca biir montagne ya bàyyil xel picc yee naaw ca kaw garab ya ca amuñu benn sàq ñoom ñépp fi ñu juddoo ba fi ñuy deeyee yàlla subhanahu wa taala dana leen jox seen wërsëg yàlla moom nga xam ne mi ngi la commencé seen wërsëgal keroog ba nga nekkee sa biiru yaay mu fekkee la fa ca la nga xam ne moo lay jëriñ ci ay cër waaye di la fa dundal di la fa dundal ba baa ngay génn ci kaw suuf mu changé forme dund boobee mbokk yàlla rek mooy wërsëgal li yàlla tudd ci yow fokk nga jot ci li yàlla tuddul ci yow doo ci jot ana ñaata ci yéen ñoo toog togg añ dem bay añ ay gan yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee kenn soraalewul woon ñëw añee nag ñoom añ ba ana ñaata lañ prévoiroon waajal leen ay añ toggal leen ko yàlla indi ay ngant duggul seen gémmiñ loolu lépp dañuy jàngal ne sunu borom yàlla dong mooy jox ay jaamam la nga xamee ne moo ko neex ca la nga ci ay wërsëg mbokk wërsëg woowu xam leen ne la ca gën ca lu ñuy gis mooy loo xamee ne nii yàlla dalaa may mu doy la xam leen ne àdduna lu doy amu fi doylu moo fi am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki texe ci jaami yàlla yi mooy ki yàlla may mu dugg ci lislaam la ko yàlla wërsëgal mu daal di koy doyloo la ko yàlla wërsëgal mu daal di koy doyloo kii mooy jaamu yàlla bu riche bi kii mooy jaamu yàlla bi am ndal xel na doon góor la wala jigéen loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal sahaaba yi heure bu ñu jógee di ñaan allahuma akfini bi xalaalika an xaraamik wa aghnini bi fadlika amman siwaak ay yàlla yàlla nag ma wërsëgal may ma lu ma doy ci li nga daganal ci man ba du ma dem di soxloo uti loo xam ne danga koo araamal ci man yàlla yàlla nag ma wërsëgal wërsëg woo xam ne dana tax du ma dem ci kenn di ko tàllal loxo wala di ko yaakaar ndax lang ma may doy na ma loolu julit bu nekk mbokk dafa war a jóg di ko ñaan sunu borom subhanahu wa taala wax na ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tudde xadisul qudsi mu ne ay yéen samay jaam xam leen ni yéen ñépp da ngeen a xiif lu dul koo xam ne maa ko leel na ngeen sàkku ci man ma daal di leen di may lu ngeen lekk aka bari ay milliardaires yoo xam ne mbokk julit dara mënatul a jàll seen put benn nan nañ leen autorisé par jour mën nañoo dem ba meew sax mënta jàllati kon loolu la sunu borom yàlla wax mu ne ay yéen samay jaam yéen ñëpp da ngeen a rafle lu dul koo xam ne maa ko woddu laaj ko sunu maam yi fekke woon la crise des années trente nit ñi am nañu alal ca amuñu benn yére bu ñu mën a jënd ba mën koo sol ay yéen samay jaam xam leen ne yéen ñëpp da ngeen a réer lu dul ku ma jubal sàkku leen ci man njub ma jubal leen te na seen xel dal yéen samay jaam bu doon mboole mi jinne ak nit dañoo daje woon ci benn place ku nekk xool lam xalaat lépp mu ñaan ko yàlla ku nekk yàlla may ko lam bëgg lépp loolu day wàññiwul sama nguur gi xanaa lu dul yow mi demoon géej jël benn puso samp ko ci géej gi la puso ba di wàññi ca géej gi day xanaa la ma leen di may yéen nit ak jinne loolu la mën a wàññi sama nguur gi mbokk sunu borom mi ngi noonu borom teraanga yu yaatu gi borom kàttan gu mag gi borom xéewal yu dul jeex tàllal ay loxoom jëme ci ay jaamam ngiree ñu daal di koy ñaan am na ay doomu aadama yoo xam ne ak réer dal na leen mooy dañuy gis ay nit ci seeni xéewal ñu jàpp ne ñii kat yàlla da leen a baaxe ngir xéewale nam bare su ko defee ñuy góorgóorlu bëgg a mel na ñoom ak nu mu ko mënee mele mbokk njuum te mënul paase loolu yéeféer yu jëkk ya dañ daan wax junit ñañ tombeeloon yéen a ngi gis ci àdduna yàlla moo ñu jagleel ñoo leen ëpp doom ñoo leen ëpp wërsëg alaaxira bi ngeen wax bu amoon it noonu lay demee yàlla dañoo farle sunu borom yàlla mu ne ñoo ñàkk xam xanaa xamuñu ne yàlla mooy tàllal wërsëg ñeel ku ko neex ci ay jaamam na doon daa baax daa bon yàlla mooy gàttal wërsëg ñeel ku ko neex ci ay jaamam na doon daa baax daa bon ca dune day alal ju bari jigéen yor mooy wane ne da ngeen a jege seen boroom déedéet bu doon looloo Firawna jege boroomam bu doon looloo Qaaruna jege boroomam waaye abadan loolu du takkuwaay bu jullit di takke yonent yàlla yi ba leen dajale woon la ëpp ci ñoom ay faqir lañu looloo tax sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne su doon te ne day àdduna dafa nekkoon ci yàlla tol na laafu yoo kon yàlla du ci may benn yéeféer kaas boo xam ne da koy naan loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax ay yow doomu jullit xamal ne la nga xamee ne nii moom mooy la gën a màgg lu lay may wërsëg di la sàmmal sa wërsëg di la barkeelal sa wërsëg mooy ngëm yàlla ak ragal yàlla sunu borom yàlla mu ne bu doon te ne waa dëkk bi dañoo gëmoon yàlla ragal yàlla day danaa ubbi ñeen leen barkay asamaan yi ak barkay suuf waaye maadaama dañoo wane gannaaw ma jàppaleen liñ doon jëfe loolu mooy dëkk bi yépp suñu baaxoon yàlla ubbi xéewili asamaan ak suuf waaye même bu ko dëkk bi melul yow jëm koo mel heure boo amee ngëm yàlla heure boo amee ragal yàlla yàlla dana la wërsëgal wërsëgu barkeel ak lu mu tuuti tuuti yàlla dana ko barkeel ba mu doy la sunu borom yàlla moo ko wax wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib képp ku ragal yàlla yàlla mu ne danaa ko may génn waay daa di koy wërsëgal foo xam ne foogewu ko fa woon loolu it mbokk julit nañu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne benn jaamu yàlla day mi ngi nii yàlla xañ ko wërsëg ba mu waroon a am wala bu ko amee it mu yàqu ci ay loxoom lan moo koy waral mooy bakkaar ya nga xam ne moom lay def mbokk loolu ibnu maaja solo na ko albani daal di koy wéral gannaaw loolu yow mi nga xam ne bëgg nga sa wërsëg yokku bëgg nga sa wërsëg barkeel foo toll del sant yàlla sant yàlla ga fan lay commencé mooy nga sant ko ci xéewal yim la defal ca xam ne loo am rek am nga koo xam ne yaa ko tane ak lu xéewal ga néew néew sant ci yàlla kontaan ci waaye it xéewal ga nga delloo ko fa neex yàlla noonu la ñuy sant yàlla lu la yàlla may kër ga la fexeel lu neex yàlla rek a fi am woto bi la bu ci dox lu dul lu neex yàlla alal ji la bu ko dugal lu dul fu neex yàlla njaboot gi la tàggat leen ci li neex yàlla sunu borom yàlla mu ne wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid sa borom yàlla nee na fii géen ngi may sant ma leen di dolli fii géen ngi may weddi sumay mbugal lu tar la ay yéen mbokk jullit xam leen ne amul benn musiba buy dal tasaaroo sunu réew lu dul ñàkk sant xéewalu yàlla fay xéewalu yàlla ak sant keneen koo xam ne nii ku dul yàlla la sunu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xamee ne nii mooy xéewal ay jaamam ci xéewal googu amul kenn koo xam ne nii dana ko dimbali ci loolu mooy ki nga xam ne mooy def lu ko neex te amul kenn ku koy jox demande d'explication ay yéen mbokk julit xamal ne it xéewal googu di wërsëg woowu daa am loo ca moom am na loo xam ne da nga caa romb rek ana lan nga moom ci say xéewal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis mi ngi jàng alhaakumu takaasur gannaaw ba mu koy firi ca mooy itteel na leen bëri la ay alal waaye mu ne kay doomu aadama yaa ngi nekk di dajale alal guddeeg bëccëg naan maali maali wa hal laka min maalika illa ma tasaddaqta fa amdayt aw akalta fa afnayt aw labista fa ablayt rawahu muslim yonent bi alayhi salaam mu ne nit day dee toog naan sama alal sama alal ma alal ji loo ci am lu dul la nga xam ne da nga koo lekk rees na wala nga sol ko ràpp na wala la nga xam ne da nga koo sarxewal mu jiitu la kon it mbokk wërsëg bi la yàlla wërsëgal lañ ca muur loo mooy la nga xam ne da nga koo jiital alaxira xanaa lañ ca mën a dolli mooy lañ ca nekk ci àdduna ay yéen mbokk julit nañu góorgóorluwaat delluwaat sàkk wërsëg ci yàlla buñ ko sàkku ci keneen ku dul moom sunu borom ñu ne wa maa yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika laha loo xam ne yàlla ubbi na ko ci xéewal kenn mënu koo tëj lu yàlla tëj kenn mënu koo ubbi fexeel ba bu la yàlla wërsëgal nga naan jërëjëf sëñ diw jàpp ne keneen ku dul yàlla moo lay wërsëgal loolee musiba mënul paase la lu àdduna ak alaxira nga la waay moytul ma dem ca sëriñu tariyaax bee mu lay seetal naan na da ngaa umu soo bëggee sa wërsëg ubbeeku na nga def lii na nga def laa mbokk loolu musiba munul paase loolu nani delloo mbir yi yàlla yàlla mooy nattu ku ko neex ci ay jaamam bari na ñoo xam ne seen commencement dund yàlla daa gàttal seen wërsëg ñu sonn lool yàlla di leen nattu xool ba xam ana nu ñuy mujjee waaye buñ muñee muñ gën a rafet bala ñoo dee yàlla ubbil leen xéewal ya gën a mag ca loolu la jullit di war a ñaan yàlla yàlla defal ko la gën a màgg ci xéewalam te la nga xam ne mooy mujjug dundam soo bëggee sa mujjug dund rafet nag da ngay rafetal sa njëlbeenug dund xam leen ne magasin yi yàlla moo ko yor sunu borom mu ne walillahi xazainu samawati wal ard booba ma ngi koy tontu naafiq ya nga xam ne dañoo jàppoon ni ñoom ñoo nekkoon madina ñoo fat sahabatul kiram kon buñ delloo madina nañ fexe ba bu leen kenn joxati dara suñ borom mu ne déedéet yow bàyyi yow jëkkër yow chef de service yow millionnaire ña ngay defal xamal ne dama koo jaarale ci yow waaye man yàlla may wërsëgal bàyyi mu yor dépense kër gi ndax bu dee njaboot gi dañuy dee déedéet mën na am mu dee kër ga gën a neex yow mi nga xam ne yaay chef de service bi embauché nit di ko fay par weer jàpp ne ci yow la dépendre à cent pour cent da ngaa juum mën na am bis boo ko dàqee la ay xéewalam di gën a mat kon nañu dellu ci yàlla yaakaar yàlla jalla wa ala lépp ñu delloo ko moom subhanahu wa taala nga la way yéen doo ko julit xam leen ne la gën a màgg ci xéewal gu yàlla di xéewal doomu aadama ci àdduna moom mooy mu may ko ngëm gu sell may ko mu daal di al istiqaama mooy mu jub ci yoonu yàlla loolay wërsëg wi gën a rëy yàlla may la ngëm gu sell may la dëppale la ngay jëf lu baax ci àdduna gannaaw ba nag buñ boolee mboole mi xéewal yi mboole mi wërsëg yi la ca gën a mag gën caa baax moom mooy aljanna yal na yàlla defal ñu àjjana muy sunu wàccuwaay yal na yàlla wërsëgal wërsëg woo xam ne danañu fegal lépp loo xam ne lu xaraam la lu ñu yàlla wërsëgal yal na lay luy dagan ca doon lu tey yal na yàlla doxale suñu digganteeg lu xaraam xijran mahjura muy barage bu ñu baare yal na yàlla subhaanahu wa taala may ñu lu mu ñu wërsëgal ñu delloo ko fa nga xam ne fa la ngërëmam nekk yal na yàlla defal wërsëgal ñu la nga xam ne mooy mujj gu rafet wërsëgal ñu bàmmeel boo xam ne day nekk jardin jardin ajjana wërsëgal ñu firdawsil aala di sunu wàccuwaay yal na yàlla wàcce jàmm ci sunu réew yal na ko wàcce ci réew yi jullit ñi yal na yàlla ubbil sunu ndaw ñi bunte wërsëg may leen ay liggéey ñette sëyul yàlla may leen sëy yoo xam ne sëy yu barkeel la yal na yàlla may leen ñu sant seen boroom di yaakaar seen boroom di dellu ci seen boroom allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin